ndeysaan fils de fils de Ibou Hambok wala nga ne fils de Ibou ngi noonu wala booma bu mbeelo ngij ndeysaan soo xoolee classico moo ñëwaat xalil classico diggante Thiatou Walo ak Grand Mbagnick Kalma Ndour dafa ñëwaat ndax taalibe Seex igri Waalo la nekk Thiatou Walo moo ko indi kii de de Ibou Ngor la nekk waaye Kara Mbagnick ak ne sibukaay moo ko indi <laughs> ba tey Kara si kaw amaat na nga ne déet Mbaye Tine Senior mu ngi ci sibukaay bi xeer ngoro ngi fee sibukaay bi <laughs> xale ay Kara si kaw rek la jot tey tey kay oo oo la ñoom ñaar oo oh, oo oh, la dañuy xool deux ndax deux oo day amoon na déet tey dina leer kii dafa bàyyi ko géejawaay bàyyi ko waalo moom taalibe seex tundu waalo gi yëpp war kaa dar moom taalibe seex mu ngi war a bëre koo xam ne ki ñuy wax fils de Ibou ñu koy wax Big Mama bu Mbeelo Ngiij borom Kanjaay borom Joal borom Fajut borom Mar moom mi ngi noonu moom Big moom fils de Ibou saan fils de Ibou ngi noonu war a bëre taalibe seex de Ibou ak taalibe Cheikh ñaari yaa ngi noonu fils de Ibou ak taalibe Cheikh arbitre sifflé na taalibe Cheikh moo ñu woon ginnaaw fils de Ibou lañ jàkkaar lool saan kala dañ naan combat grand bañik a caatuwaar a tekkiwaat na rek ndax kii di fils de Ibou grand bañik moo ko indi kii da caatuwaalo taalibe Cheikh ak Alioune Seye ko indi da saan fils de Ibou ak taalibe Cheikh da saan soo déggee fils de Ibou doomu père Ibou mu mag ma la père mi nga xam ne def na si lamb simple lu ne ndeysaan ku jur doom deewoo ndeysaan fils de Ibou Baye Balla Mbuub classico moo dekkiwaat ndax taalibe Seex caatu waala ko indi kii di Ibou grand bañik moo ngi mu nduur waaw waaw <laughs> classico na <laughs> fils de Ibou jël ko mu bañ xeex nañ ñoom ñaar ndeysaan Fils Seybou ndeysaan mbërum ordinateur ba Fils bu jafet na ko Fils Seybou daan na ko oh la haylala doomu mbelo ngis bi daan na ko Grand Mbagnick mi ngi noonu Grand Mbagnick Grand mi ngi noonu Grand Mbagnick mi ngi noonu ndeysaan Grand Mbagnick kooku mooy Fils Seybou ndeysaan daan na ko Grand Mbagnick